njiitu réew mi di président makki Sall jamono ji jot na sëkk mu wax ak Serigne Mbaye Thiam mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum ndox mi màggalu Touba gi soo mooy tuulee dina ko sabote ndax liggéey bi nga xam ne war na ko see def ñëw xool forage yi jël ci ay matukaay amul lenn loo xam ne daan na ko ciy def Moussa Thioune di responsable politique APR fii ci Touba jiite mouvement dooleel Macky daal di ci yëkkate ay kàddu. mais màggal gu mu mës a romb màggal gi moo moo a métti moo koy gën ndax li ministre bi wax démb wax loolu dara ci dëgg forage yi pendant un mois mii nii Touba jëpp dafa am problème mu ndox Daaru Marnaan fee ma dëkk presque lu mat un mois yi nii man damay root jaartuma waa fan yi yëpp ñu ngi bind ay lettre de réclamation di ma ko yónnee ma koy ma koy jot li mairie Touba problème mu ndox moo am vingt six forage moo fi nekk benn forage doxu ci benn forage bi xam ne sax li ci ëpp moo ñu ndox Touba ci kanam ñoo jënd pompe ba defar ko fa kon ñi ngi interpellé nag autorité yi ak gouvernement Sénégal xamal ne Touba ren màggal ko mos a romb ji moo koy gën a métti ci problème mu ndox moom responsable politique bi jiite mouvement gouvernement bii di dooleel Macky fii ci Touba di xam xamle ne màggalug tuubaa gi bu askan wi amee ay jafe-jafe ci lu jëm ci ñàkk ndox bu mu bett kenn waaye tamit bu ko kenn jiiña Serigne Bassirou Abdoul Khadr wala sax ki nga xam ne mooy maire bu Touba di Abdou Lahad Ka na ñëpp xam ne Serigne Mbaye caam la moom mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum ndox mi te amul benn jéego bu am solo boo xam ne daan na koy tekk. ñoom ñoo defagul li ñu def ministre bi amul benn compétence dafa mel ni sax moom ki fi nekkoon Mansour Faye moo ko tane sax ci ndax moom moom moo amul compétent doxal ministère bi ndax li problème bi boo boo ak léegi mën na un mois ñëw ñu fi jaaruñu fi ñuy bàyyi ba màgg des un mois ñëw fi di def ay tournée naan def nañ par le huit pour cent loolu dara du dëgg liggéey bi defu ko tey defu ko ëllëg ñëru màggal gi sax dafa ñëru farbe ndax lii ñu wax ne huit pour cent yi dafa defuñu ko euh, Moussa dañ doon gis na màggalu Touba bu jubsee wala mu desee ay ñaari weer ministre bi nga xam ne moom lañu dénk wàllum hydraulique day ñëw euh, yëpp euh, ren jii da ngaa gis ne ministre bi doxewul noonu lu mën a xew di léegi liggéeyam boo léegi nag damay bañ ñu imputé ko sëñ Badou Khari ba Abdoulaye Sall monsieur le maire bu allégee ñi naan monsieur le maire Abdoulaye wala sëñ Badou Khari loolu du fi am duñ ko nangu ñu ne ay taalibe suñ Tuubaa la amuñu lu sëñ Tuubaa amuñu lu bisam bii beneen bi képp ko nar a sabat bi dana la wili paane ci àdduna bépp a mur di xam ni sëñ Mbaye Thiam moo na yàq maagal